niñ koy waxee at yi ñu weesu yépp noonu rek lañ koy baamuwaate ren yàlla léeg-léeg dana dajale ay bagaas ci benn barab loolu nag li ma ci bëgg leeral mooy ki woote guddi gu màgg gi ñuy bëgg a def suba muy cheikh Mouhamadul Moustapha ndab li ko borom Touba sàkkal nga xam ne dafa dajale ña ca war a sukk ñu tudde leen ahlu daaru xudduus ñooñu laa wax ne cheikh Moustapha al Karim ak njabootam. ci yoonu sëñ Tuubaa wi yàlla dajaleel na ko ci ay jàngkati xasida ndax man nag ñu wàññi coow li tuuti rekk dama faf féeteeg sëñ Tuubaa directement waaye nag ndab li ma sëñ Tuubaa tibbal ma war cee sukk ci daaru xudóos gi lañ ko taaj am naa ci lu kenn amut nag ndax li jànkat yi bari bari man la ci sama sëñ Mor Moustapha fi xam rek wax ma xaadim mii woote bis bi bàyyam sëñ Axma Gay la la Cheikh Moustapha al Karim sama carte dan ini mustafa Mustafa Majur jur sama ndey Faati sama ndey Sohna soxna Fat Samba job mi ni won fi ci keur gu mag gi ci daru khodos mom lañ ko tuddé moko yar ba xey mur ko jox ko sama baye addiya kon safna ci sap khodos sap Cerno falo mi sama wasila di taw Cheikh Ahmadou Nour Cheikh Ahmadou Nour di doomi ndeyu Cheikh Moustapha ñu daje ca Matar Ndume ma sañcoon kokki Cerno Faalo di xeetu Cheikh Mouhamadou Moustapha moo ko dalal baax jox ko sëñ Cheikh Ahmadou mu tedd ma gaynde ma mu mottalil ko daayira bi ma njëkk bokk ci kaw suuf daayiratul kiraam lañ koy wooyee sëñ Cheikh moo waxoon ne nañuy joxe ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett Kawlax sama kër baay moo doonoon seesu daayira ba sëñ Cheikh wax ne dafa xool yoon yi jëm ci yàlla xamu ci bu gën a gaaw daayira ak ñaar fukki dërëm ak juróom-ñett yi ñuy joxe moo tax mu teg ñu ci loolu ñu juddu fekk ko fi di dox ba yàlla dajale ñoo jàngkat bu tudd Serigne Khadim Gueye ma faf xaritoog moom muy sama xarit. ci lu ump ñu bari muy man may moom loolu rek doy na euh, ñu seq yu bari yoo xam ne mën ta wax fii yàlla na yàlla guddal aw fanam portale bii ñu def léegi wax jaar-jaaram loolu li ñu xam la waaye li ñu xamut a ko ëpp ci xeetu dal ak baax ak yéwén ak nangu ay natt ak i jaar-jaar yàlla na yàlla guddal fanam maa ngi jéggul bu baax bis bi lépp maa ko waroon a taxawee waaye xat-xat yi rek yàlla na yàlla guddal fan ah waaw sëñ xaadim Mbàkke moom Cheikh Ahmadou moom Ahmadou moom Ahmadou dañ ko dalal mu toog mataar ci xas yi rek lan mën a xam sëriñ bi